asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah ah ñu del di jéggalu rekk di jéggalu te dañoo bokk ci une société une société nag boo ci bokkee ah, mu ami poñ nga am ca wàll ah, say doom bokk ca say baay say maam bokkoon ca te njaboot gi ngi fi bàyyi ëllëg ñuy juddu dañ cay am wàll kon am na yooyu buy xew buy xew nga fekke ko war nga caa mën a wax dëgg goo xam ne non seulement day jubbanti waaye day tax ba ñi nga xam ne xamunu xam dana bokk ci ngir yëpp bokk ci yoon yëpp doon ay sénégalais nag condamné à vivre ensemble am na yoo xam ne buy am buy am waruñu koo ragala a dénoncer ndax ci dénoncement boobu dénoncement boobu euh, ci la ak yeewute di jóge ci dénoncement boobu ci la del xoolaat sa ginnaaw di jóge ci dénoncement boobu ci la kenn ku ne ne tekk taxaw xalaat xool ba xam lii nga nekk lu mu doon bu yàlla dogalee nu war a ànd bu naxante kan bokk seet liñ war a def nu defandoo ko waaye buñ ko deful buñ ko deful mooy waral joote ji nga xam ne mu ah, moo continuer di law te la ñuy wut mu ak jaamu yàlla duñ ko cay gis dama ne dañoo bokk diine ji bokk tariixa yi bokk lépp lépp loo xam ne yaakaar nga ne du dox war nga ko mën a dénoncer pour ñu seet ba xam lii nga wax yow ak lii am ak nu mu demee ma bëggoon a si ci problème yi nga xam ne mi ngi am fu mel ne Touba Touba kenn ku ne xam na ne sëñ Touba Mbàkke euh, dëkk bi kenn saraxu ko dëkk bi kenn mayu ko dëkk bi da koo liggéey awee ko ci ak jaamu yàlla gu mat sëkk ba jotee dëkk bi kenn ku ne xam na ne bind aar ko ñi nga xam ne ñoo fa dëkk aussi kenn ku nekk xam nga ne euh, Matlabul Fawzayni euh, sëñ Touba ko def pour bokk nu ñaanal ñun ñëpp kon bu lépp laloo ci ak ñaan ñaan nga xam ne ci yàlla lañ koy yaakaar mu war a nangu jëf yi nga xam ne dañ koy jëf war naa duñ jëf ci rafet jëf ci rafet kan boo ko waxante dëgg kan bokk ko waxante dëgg ndox mi taa Tuuba taa Tuuba dama ne gàcce la ndox mi taa Tuuba du dëgg du yoon du ne amuñu xaalis buñ ko defere du ne état bi joxuñu woon xaalis duñ ne taalibe yi bëgguñu koo defar jéem nañ ba sonn kenn ku ci nekk defe naa ne sas tuut dem na ci waaye ba ndëgë ni ba ndëgë ni tey la waalo gën a ay nit ñi ci ndox mi la ñuy tëmb nit ñi ci ndox mi la ñuy tëmb te bu bokkee waxante dëgg xam ne mënoon nañ koo defar dama ne xaalis bi ruus ci armeel yi maanaam bi génn ci armeel yi képp mën naa jënd tiwo yoo xam ne mën naa canaliser dëkk bi waxuma la sax armeel yi waaye bu ñu bokkee waxante dëgg xam ne ruusit yi nga xam ne mooy génn ci jumaa ji war naa mën a liggéey lu bare bare bare bari ci biir dëkk bi ba tey bu ñu tegee foofu loolu doomu seex yi nga xam ne ak doomu kilifa yi nga xam ne ak yenn mbakke mbàkke dañu ami taalibe ami tool am naa yaakaar ne bu comme ñu lempo bu doon tibb di am lu ñuy joxe am naa yaakaar ne dëkk bi du mel noonu waaye liñ gis daal mooy lépp loo xam ne tegu na ci loxoy nit te duñ ko wéer ci loxoy boroom xam-xam di baayam ci lañ koy wéer dénk ko liggéey ba ndam di co am ndam di co am lii ma wax bu leen fanatik bu leen fanatique ñun ñëpp ñoo bokk sëriñ Touba dellu am duñ yaakaar ci Serigne Touba sëriñ Touba xàll yoon woo xam ne kenn ku ci ne xam ne ku ko wàccul da nga aljana muy yoon woo xam ne yoonu siraatal mustaqim yoon woo xam ne ci alquran la ko teg yoon woo xam ne ci sunna su Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko teg ci charia boo xam ne bu fekkonte ne def na war a def Tuubaa Mbàkke kenn du fi atte lu lu charia bu fekkoon def lañ war a def def lañ war a def Tuubaa Mbàkke du sukkandiku ci code de la famille Sénégal gépp gépp gépp tey bu fekkoon def lañ war a def Sénégal gépp mën nañu xëy tuubandoo ndax kàddu xalif général dafa amoon doole waaye léegi lii ñu gis ay politiciens ñoo fi ne lii ñu gis demut fenn ñàkk dem fenn gi mi ngi ni gis ngeen ko waaw gis ngeen ko avec les nouvelles technologies yi xam ne ñoo génn léegi ak xam-xam bi nga xam ne ñu jox ci isbul tarxiya xam-xam bi nga ñoo ci yoonu murit tey ñu dem ba amuñu fun jaar na comme ndox ñu dem ba ndox mi nga xam ne moo ni ci dëkk ñu consommé kenn mënu koo sex ndax xorom si te technologie ne fi dama ne kan boo ko jóg kan boo ko jóg te bañ a jaayante ndox mi xelli Tuuba képp bu waa Hizbut Tarqiyyah farxoon far farlu war nañoo mën a dekkal lac du Baol lac du Baol mën nañ koo dekkal ana nañ koy dekkale taw bi nga xam ne day xelli bu fekkoon def nañ ko ay tubo normal sànni ko mu dem fa lac ba nekkoon lac day dekki ba njaareem dama ne euh, kan waxante dëgg kan waxante dëgg xaalis bu fi ñëw dañ koy lekk dañ koy séddoo dañ koy séddoo gi mooy wane lii quatre quatre yu bari yi te kenn ku ci ne sa ñeenti jabar a ngi taxaw sa ginnaaw ak ña nga waccoon ah, yor njaboot goo xam ne ku la jox loxo doo ko xam loolu yëpp ak beew la ak beew la ma ñëw nag ci Tiwaawoon Tiwaawoon dama koo xam dëkk fa yaru ci kanamu Alaaji Abdu Asiis Si man mi wax yéen Alaaji Abdou moo ma liggéenti ba ma dem France en 1975 ma xam ko lool mu sama wëli bu bàyyi doon sama mbokk jumaay Tiwaawan ji du àgg mukk du àgg mukk lii ma def ab tànk laa woon tuut tànk Alaaji Njuga Kebe ñëw na fi joxe fi xaalis bu dul jeex xaalis boobu anamu lekk nañ ko bu yàgg demul ci jumaa ji Alaaji Jiiri Mbay ñëw na fi joxe du dul jeex ana xaalis ba sëñ Abdoulaye Mbacke ñëw na fi Tiwaawoon gane si bàyyi fi ab xaalis pour jumaa yi ana xaalis ba kan bokk waxante dëgg te jublu ci suñu bopp waaye ñii nga xam ne dañ ko wér ci di way sama bàyyi di maam ci kër gi laa bokk ñu bàyyi li ñuy doonante liggéeyuñu liggéeyuñu seen bopp lañ fi nekkal ak seen i géwal seen bopp ak seen i géwal yi leen di jaay képp lañ fi nekkal taalibe yaa ngi yi jël yoonu Espagne bi di dee par groupe taalibe a ngi dee par nombre liy dee ci taalibe kenn xamul lu mu toll jën yee leen di dunde ñu ngi tëmb ci ndox mi actuellement parce que ak jaaxle kepp la ki la yaakaar àdduna ak àllaaxira boo ko mënta fajali duma fii ci àdduna boyet nga won ko ginnaaw te wane ngeen mënul leen dara ci ngeen di dugg ku leen tàllal ngeen ko gaa gaa ngeen koy siyaaree nangu leen jël loxo kenn ku nanguwul loolu nag boo yaakaaree ne man ngaa yu sawi nit baar sàq torox ga dama ne jumaay Tiwaawan ji lii ma wax moo am kuy def xalif général ci Sénégal rek déggoon ne ñu ngi tabax jumaa joxe nga cab xaalis jamono yi àlla jëb dasi si mi ngi fi ba heure bi jumaa ji àggut lii xaar bi yaar xamuñu fu mu doon dañ koy dénk nit koo xam ne ci kër gi la bokk wala di yooyu ndeyam wala di baayam wala sant wi la yor te du tabax dara day àndaat ak ñoom lekk ko li fi nekk nañ ko wax te ngeen jóg te le gouvernement du Sénégal comme tarix yi mënut ñàkk def nañ ko ba pare te nee nañ ay famille ñoo koy jiitee te intere Sénégal yëpp la war noo former benn cabinet boo xam ne da leen di saytu da di saytu alal ji ngeen di jot ci màggal yi ak gàmmo yi dee leen comp lu mel ne addiya pour dëkk bi am foo koy teg pour ñu mën koo lijjanti waaw kenn ku nekk gis na Touba ca kanam doon na jéem a góorlu waaye xaalis ba mu dajale woon anamu lu tax Touba taa tey ana xaalis ba ban dajale lu tax dëkk bi mel nii tey benn mënuñoo liggéey walla ñaar jubóowuñu wala ñett am na ko lekk xaalis bi waaye Touba ca kanam li mu encaissé. tey dëkk bi mel nii dëkk bi mel nii war nañoo génn wax war nañu génn wax Tiwaawan c'est la même chose ñoom daal nañ fee nekk buñ soxlaa gàmmoo moo leen ëppal important ab traite la màggal dafa am importance parce que ab traite la ñoom ñëpp am xaalis xaalis boobu defe naa moo détourné mentalité yi ba talunu dëkk bi waaye lii xew Touba ak li Touba di dugg ci ay dërëm lii ku ci teg sa bët ku ci teg sa bët xam ne du dëgg di yoon waaw xalif général bi gis nañ ko bu tay mu tibb xaay bu bari maye day tibb di may ba may gouvernement bi ah yéen murit bu nga demee ba France jënd fa ay foto ah ci nangami million ñett ñeenti photo xamu juróom-benni photo ah ngeen jënd ko ci ay quarante deux et quelques millions ana fu ngeen ko teg loolu bu jaroon ni poto tey bu jaroon ni tiwo mën naa génne ndox mi puukare bi bari na naxante bi bari na te li ñuy def dara du ci dëgg ndax bu doon dëgg bu ci doon dëgg ñu gis bénéfice bi waaye bénéfice kenn gisatu ko Sëñ Tuubaa liñ koy yaakaare du léegi de ñi dañuy yaakaar ne bu dee mu sawe leen waaye liñ gis fii moom liñ gis fii ah ku ko topp ku ne da nga torox fii te boole da nga torox fële waaw te lu ñu nu jóg leen ngeen jublu ci seen bopp te xam ne ay nit ngeen xam-xam akum xel ngeen war a demee Sëñ ko amutum xel doo ànd ak moom de Sëñ Tuubaa boroomum xel lay waxal ko ni ko yàlla bëggee waaye lii ñu nekk ci dëkk ba ah di dóoree ak a dammeek di dàq xale yu jigéen ñi di dóor fii loolu dafa war a jeex ngeen ubbi école yi jàngal nit ñi alal ji ngeen di séddoo moomu leen ko waaw li dugg ci dëkk bi dama ne jóge ci état xola addi yi jóge yi jóge ci extérieur képp dugg biir Touba Mbàkke mënoon naa tabax Touba gépp mënoon naa tabax Touba gépp tey mën leen a am ndox mu ngeen naan ah Touba foo teg sa tànk ci puuj puuj nga ko teg ah, sañ sañ saan yi dañoo sonn lot amoonu pexe te ñi mu ñoo wax sañ sañ saan bu ubbi sa gëmuñ fekk la sa kër dóor la wala dañ lay génn dëkk taal sa kër waaw affaire force occulte yooyu la war a dakkal te wax dëgg waaw maa ngi jégalu lu baax a baax nag di xamal ne Tiwaawan war ngeen góor góorgóorlu seen jumaa ji dama lii ma wax moo am waaye képp ku ma li at nga dëkk Tiwaawan boo xoolee ba dalee laajal jumaa ji ak léegi ëpp na juróom fukki at wala ñeent fukki waaye dara mënta sotti séddoo rek lii xew Tiwaawan mooy li xew Tuuba moo xew fépp ci këri sëriñ si nit ñi sonn nañ toqi nañ waa naxa bi dafa war a dakk ten bokk ko ànd jaamu yàlla dooni julit te tarixe yi jubbanti ndax am na solo ci réew mi man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences maa ngi leen di ziare ñëpp te jéggalu réew mi nag ku fi wax dëgg ku ne ku fi wax dëgg ne leenu ñu rey la waaye day dee ci dëgg ma gënal dee ci ay fen peace and love jaa ngeen jëf jàngeen ngeen jëf